a best production. mu ne eh, yaa. waaw damay damay indi ñaari amul. ah, ah. local ma lekk ci kanam. maa suuli dem damaa kalir man. eh ah mu ngoon essayé kii yow ah eh, yow kay yaa may bëgg rek mais wax nga naan ay local. <laughs> man lu ma lekk ambur ngay commandé ndekete yow ligne bi ligne bi doo ko wàcc bu ñu liggéey bi te yow yaay yaay woote suudiroo ah eh tegal benn suudiroo ah si biir ngay ba sa man daf ci quoi de problème yow li nga yore eh sigil eh nga sax wax ay andi wax xam nga fan yëpp maa ngi lay topp di la constaté di xool ni ñuy liggéeyee nga nekk ci ay normes yoo xam ne neexuma da ngay tardé boo ñëwee doo rëdd ni ñëw nga doo def benn justification bu may xamal ne yaa ngi xëy si wala yaa ngi léegi nag d'abord ci semaine bii laa la bëggoon a dugal bolo parce que sa pota ay baaxul man gis naa loolu mais dama ne woon naa la bàyyi parce que sa pota ay doxul pota yi nga xamante ni mooy way ngay am ñokket di gaaw ak yooyu noonu doxul ñi ñaa ngi dugg nga yow yaa war a recevoir yaa gën a wér a wér amoo wér amoo wér de téy na lu sa bëri ku la réew li du pant ak lañ seet nga mën a bu baax da ngay sinon sinon fang suba laa la may ci journée tey bi bu amul rapidité ci liggéey bi suba ma dugal a bolok dama lay opéré dama lay opéré parce que yow ni ma lay gisee ngay dox ni sa euh, bolok laa la jëmale. il fallait bu ko laalati même bu amee appel jël ko sama bopp dégg nga tolloo ni doomu soble bu ndaw. di tuuti fa lay opéré salaamaaleykum sëñ bi na nga def. maa ngi euh, fi may clinique càq càq. dama dégg ne feebar bu nekk ngeen di faj fu ne dem naa fa ci at hôpital bu eh, nekk dem naa fa mais dégg naa ne yéen ngeen faj nit ku dee sax am ngeen eh! <laughs> eh, dimbali ma laa wax de. eh kat eh mais tu nous as merde. mais yow sant yi day. ak yow. xel dala ci bi man daal boo bëggee dégg naa ci kii sama rakk eh, la eh, sama eh, papa dundatul sama yaay dundatul mais na ma trop moo tax sax sëyewu ma ku ñëw kër ga mu dàq la am na mu mel ak ba pare dóor na ma trop. booy yow yow nga mel ni feebar feebar looy mel ni contact nii yow moom xoolal sama boole yow dinañ gënte ok maanaam su ma déggee say biir wax moom dafa am rewoon. feebar rewoon de bon moom réewante rek mooy feebaram. ñun yëbaate yi. <laughs> Eh, eh eh eh fayal fayal. fayal. lan laay fay. catastrophe. Eh, eh, eh. mais ce qui est passé eh. wuy ma calme leen dimbali ma jël na sama cigarette boo waxee yow laay taal. Eh, dama eh, eh, ah, ah, damay damay. wuy ma may ma sama jàmm nga naan ma. maa ngi jégalu lu mel ni suppositoire nii. maa ngi jégalu <laughs> maa ngi jégalu maa ngi jégalu non non amul benn problème ñun fii maladie bi ñuy fokk calme leen amul benn problème ah. eh réewoo da nga jotul eh man yow laa mën a defal sax. mais yow. ñun amul problème wuy bàyyi ko bàyyi ko. oui oui calme calme parce que nit ñi dañuy daal fii nii ah. oui bon donc ngeen di qu'est-ce qui se passe là. eh sa loxo yow. waaye maa ngi jégalu. kii mbokkam la. nee na moom mii dafa am feebar rewan. Ah, maanaam dama xamati. waaw amul benn problème. moom kii magam la. mëntu la sëy. man la Lamine Tintin. lenn rek moo fi indi moom mii. sama rakk la maag moom ñoo bokk ndey ak baay. sama papa dundatul sama yaay dundatul ñu ñaar rek la ñoo fi nekk. man may magam nag. toolu ci sëy war a sëy. dafa bëri far muy sëy mais ku ñëw kër ga mu toroxal la kenn mënu ñaan eh, ndax moom. man la Lamine Tintin fu nekk yóbbu naa ko man la Lamine Tente. ok dégg naa fi yow mel ni contact nit. jëm gën ñu yàlla amul benn problème yow réewoo dara jotul ku yaru nga waaw ku yaru la amul benn problème kii dara jotu ko waaye daal vraiment yow dara jotu la. <laughs> xam naa la mais euh, comme que li nga wax ni parce que yow fi mu nii mat nga toll ko ci xam nga kii daf la nar a yàqate parce que comme ni la fa nekkee comme ni man du xam nga da ngay da ngay dem ba da xam nga léegi nag euh, comme yow yàlla dimbali na ba nga ñëw ci clinique bi nii lay ruuxee foofu yaa ngi dégg léegi amul benn problème sa aajo dina faju di nga am jàmm dootul gëreet yi sama copain noo tudd Lamine Tintin. gouvernement eh. def naa jël cinq ans. waaye ñun dama ko oh, kii kii naka leeral ko ko leeral ko ko. kii def na jël cinq ans. bu ko pontoo. léegi xoolal dugal ci sàmm benn yokk yaru ma dugal ci sàmm benn toog. amul benn problème ziita am na. soxna si jërëjëf. sama suuf bi fekk ginnaaw. waaw. am na benn ndell bu ma fa xoojoon. luy ndell. mooy liif yi saf yooyu. maanaam karawaas yi karawaas ci événement naar yi la ko xoojo an événement naar yi événement naar yi soo baa nga foofu ndell baa ngi ci boo demee nga rocc ko nii nga jëndal ma xorom deux cent boole koog moom rocc ko ci rocc ko ci rocc ko bu ko defee dina dugg ci karaan yi xorom bi dina dugg ci karaan yi foofu parce que booy bi gis nga dafa industrie bi dafa rew mu may ruux fii nii léegi léegi waxum mënu ma wax parce que magam bi gi tax kon dina dof la moom comme yàlla nattu na la ba ma pikiir naa la ba nga ni nem li des dootul bëri dana nelaw loo moom du la yow loo soobee lii rek mi nag waaye. du kii moo dugg fi léegi. kontaan naa de. gis ngeen. waa Kasa Sorof lii la la tamit. nee saay. saay waxal saay. saay boole loolu. saay saay. vraiment nii la de. dèjà dèjà teel bëgg ba. mais ana sama grande sœur bi. ah oui gis nga mu ngi soxna si pardon. ah ok. lu ma dégg grande sœur. waaw xanaa man damay rêvé nii. déggal noo xam ne ah, ay Lamine. yow Lamine wér nga te yow laa am te yaa naa la fii lépp am na fi. <laughs> faj nañ nit koo xam ni dee na. waaw dee na moom. woo nañ barki démb am am na ko xam dafa nay nay fayoru nay la am nay nay. nee nañ ko duñ ñu ko yónnee mu ngi xombal di ñëw. waaw waaye soxna si fii mooy clinique Cag Cag fii maanaam lépp loo xamante ni. man maanaam commencement bi dama ko foogoon da ngeen livré quoi. non non non livré wuñu parce que bu yàgg ba sa ay mburu lañu daan livré mais après la ñu xool. xam ni loolu mais macha allah man lépp luñu ma waxoon ci clinique Tek Tek rek tey teg naa si sama bët. mais grand frère est-ce ma dem ci buntu bi xaar la ba nga pare nga waxtaan ak. waaw d'accord ñoom. ah jigéen de bii noonu. sax. jërëjëf jërëjëf Mouride jaajëf. jërëjëf jaajëf. mais gërëm am nga kii am nga dama ne eh eh. mercredi am nga. mercredi amul am nga rendez-vous parce que xorom si sa xorom dafa xaw a manqué parce que euh, allah dina ñëw tey jii comme yéen premier jour bi rek mu mel nii. mercredi man maay talal sama. non man mooy loolu instant nañ ñëw rek. non Lamine ñëwal Maodo Lamine. Maodo Lamine ñëwal. il faut que garaawul eh, instant yii moom mooy. Ah kontaan naa kontaan naa. jërëjëf jërëjëf lépp fàtte mercredi bi. ñu tase ñu tase fële ci sëñ bi kontaan naa bu baax a ni bis oh, ni ci tey. jërëjëf ngeen gën a siiw ne xorom. yow la moo gën a garaaw dee. dee dafa yéeme. fañ nañ fi. keroog benn euh, bi dem jàpp ci abaa yi nga ni dafa am ay abaa am na ñaari abaa yoo xam ne fii euh, bi dem manque ko commencé ko mucc man bis ni ki tey yéene sama sama hôpital. yow yaay sama médecin. nga yamul benn problème may jox rendez-vous par kañ lay ñëw nga may xoolal defal visite sama yaram bi yëpp. xoolal waay waay waay yow ah. waay ah, ah. waaw. Euh, <laughs> comme kii day am congé fan yii day toog mën nga ñëw dimanche. dimanche waaw dimanche parce que dimanche man rek maay faj bu ko am na ci yu bëri jigéen ñi xam nga comme euh, jigéen ak góor li muy kii bëriwul te man machine laay jigéen ñi du ma leen laal xam nga wóorul xam nga mun nga am non man grand wóoru naa la ak man wóoru naa la parce que li nga def sama rakk moom amuma sa benn problème léegi kon dimanche da ngay ñëw vingt heures rek vingt heures vingt heures waaw waaw incha allah xam naa à la prochaine incha allah yow ba dimanche comme yow da ngay benn problème jërëjëf on va li ma wax ak yow maa ngi ci dama lay opéré parce que fini danga commencé mel ni kuy dof ak lu ne day dugg borom bi jël naa ko léegi moom la parce que yow bi la léegi comme yow yow da nga koo paj da nga koo paj wala da nga koo paj dama jël ko léegi mais nag bu fàtte borom dama lay opéré de tey naa non non non parce que fan yii moom. non fan ak suuf rek non sawar rajo gud gud rajo gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud gud so baax tudd yee